ci Mollah la ñuy desandi ndax moom ci boppam sax jot naa joxe ab xibaar ci état bu Sénégal gi nga xam ne fi ne mi ngi koy kàmbal ngir bëgg delloo si waat Sénégal ci noonu rek la daal di defee ab live di xam le état bu Sénégal jot naa rek xaatim juróom ja ñeent jàpp juróom ci ay bataaxal yu mu yónnee fa nga xam ne moom moo di ca Canada ngir rek ñu daal di génne ki la réew ma mën kaa delloo si waat fii ci Sénégal amu ne nag bépp bataaxal bu ñu bind rek canadiens yi daal dinañ koy xotti sànni ndax ñu defoon Assane Diouf ba léegi leçon la boo xam ne kenn du ko fàtte ci jiñ ko terroriste ba daal di ko indi Sénégal te dara amu ci mu ne nag pouvoir exécutif ba cons pouvoir exécutif ba constitutionnel ba ah, ca Canada bokkuñu ba tax na droit ba nga xam ne am nañ ko fa moom mi nga xam ne am na fay këyit bu ko neexee sax taxaw wax ne président ba waxul dëgg te du mujj fenn ndaxte réew ma ci boppam moo bindoo noonu ah, kon tey mënuñu kaa rek mépp daal di koy andi Sénégal te du le président de la République Macky Sall moo mën lu ni mel tànk du moom wala moo bëgg rek daal di ñëw Sénégal